alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu saalihaat wa tubaarakul xarakaat wa tudaful xasanaat summa salaatu wa salaamu ala nabi rahmati wa kaashifi lgummati wa shafii lummati wa ala alihi wa sahaabatihi al a'immati wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi alqiyaamati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 muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di dellusiwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow te mooy waxoon naa la démb ab commerçant dafa war a dëggu bu mu nekk kàccikat te mu nekk lu bari lool ci commerçant yi ab commerçant dafa war a wóor bañ a nekk ab xorkat bañ a nekk luubalkat bañ a nekk ku di koo xam ne dafa dëng ba moo gën a dëng xale yi ab commerçant dafa war a moytandiku gëñ njaay charia day bañ ko ci gëñ comme ni muy bañee kuy gëñ ci goreel di bañ kuy gëñ ci passé waaye ab commerçant dafa war a nekk kuy mana saraxe gannaaw bu mu fenkee bu mu fonkee génnee asaka ji na fonk di saraxe ci li ko yàlla jox koo xam ne li nga yor tiim ko bët bu set lu ëpp junnee bët teg ci seen bët soo bëggee mukki ca bët yooya del def ca gémmañ yi nga xam ne mooy boroom bët ya dara moo tax sëriñ Fàllu Mbàkke góor ak yàlla gu tedd ga ba waaja a ci moom ne ko sëriñ bi dama bëgg nga ñaanal ma yàlla musal ma ci gémmañ yi sëriñ Fàllu ne ko ku bëgg mukki ci gémmañ yi del wut looy def ci gémmañ yi waaye ku dul def ci gémmañ yi dara mënoo mukki ci gémmañ yi kon boo yoree marchandise moo xam ne lu hëpp bët bu set lu hëpp junney bët teg ci seen bët ya fexeel ba gémmañ yooya nga xam ne bu bët xoolee gémmañ ay wax nga wut loo dugal ca gémmañ ya ndax nga mën caa mucc waaye yore marchandise bët ya di ko xool làmmiñ ja di wax bët ya di ko xool làmmiñ ja di wax te doo def dara ca gémmañ yooya ku la wax ne mën nga caa mucc dafa lay jay ku wax mën nga caa mucc dafa lay wax li la neex waaye boo ca bëggee mucc del sàkk sarax boo ca bëggee mucc del maye boo ca bëggee mucc nekkal kuy def ca biir ya dara waxoon naa la ñeent yooya kon suñ bopp darsu bi mooy juróomeel bi mooy asamaahatu wa taysiir dañuy bëgg ci ab commerçant mu nekk ku jàppandi yi boo dëggoo nag nekk ku wóor faw dangay nekk ku jàppandi ci sa jikko sa jikko jooja jàppandi ji moo lay may ku la nga jéggal ko rawatina muy sab client moo lay may ku saaga doo ko ko delloo moo lay may ku la lor jëme ci yow ci wàllu njaay walla ci wàllu jënd yow foo tollu dangay tàllal sa xar ba di muuñ jëmee ci nit ñi ab commerçant dafa war a neex deret waaye commerçant bu naqari deret boo xam ne ku muy jaay boo amul sens balaa njaay maa jeex ngeen xuloo balaa njaay maa jeex ngeen daggante ay saaga dóorante ay kur faje koo ko gisee rek xamal ne dëgguwut koo ko gisee rek xamal ne wóorut waaye boo wóoree dëggu rek man ngaa mucc ci jikko ju bon jooja nga xam ne ah, commerçant yu bari ñu ngi koy jikkoo jikko boo xam ne koo dajee yaa ngay seet noo koy naxee benn nga bëgg ko nax du ko xam rek jàng rawatina jàngkat tubaab yi toujours dañ lay jéem a nax doo xam nax ya rek nga leen di sant di lay gërëm fekk yow ñu ngi reen di nañ la ba ngay bëgg a dee mais ca dara ñàkk xam xóorut kon xalal muy commerce dañ koo tabax ci sàkku alal ak dagale ko loolu ak nay da cay xam ca sàkku ga ak dajale ga jamaa maalan wa addadahu moo tax kon yàlla bëgg ci commerçant yi ñu nekk ñu tabe ñu yaatu dënn ñu mën a tàllal seen xar-xaram jëmee ko ci nit ñi nekk ñu yaatu ñu mën a xajoo lu bari nekk ñu mën a encaisser commerçant bu la dàq encaisser kàddu yu bon kàddu yu ñaaw jëflante bu bon kooka mooy ki lay gën a bëri lu muy encaissé xaalis waaye commerçant bu la gën a naqari deret gën laa ñaaw jikko gën laa mën a saagaante gën laa mën a ñeme ñàkkante mooy ki la gën a néew lu muy encaissé kon commerçant du ñeme ñàkkante koo ñàkk-ñàkk ay xameelam koo ñàkk-ñàkk ay ay bokkam moo tax saa yoo ñàkkee kenn nit da ngay foone yow moom rek a ñàkk waaye nit ki boo ko ñàkkee ngir jëflante bu bon mbooleem mbokkam yu baax yi ko am ñàkkaale nga leen xaritam yu baax yi ko xaritoo ñàkkaale nga leen xameel yi ko yi ko xam ca wàlloo ñàkkaale nga leen moo tax léeg-léeg nga ñàkk kenn nit kenn nit kooka fekk ay junnee junnee nit ñoo nekk ci gannaawam kooka boo ko defee ba ñàkk ca téeméer ñaar fukk da ngay mujj ñàkk Sénégal yëpp pertement la rawatina senegal ni ko yàlla ni ko yàlla ràbbee ci ay waasoo ñi ràbbee ko ko ci ay euh, waa ay waaso Euh, ñi ak kalante ak bëggante moo tax ku fi bëgg a jël di di xeex ci wàllu xeetoo ak i raasoo ak i waaso doo ci am ndam euh, kenn mënu koo defee ko téef ci am ndam mag ñi tabaxoon nañ ko te dëgër na lool tukulóor ba ma ngay tooñ séeréer ba naan tukulóor jaami séeréer séeréer baa ngi koy tooñ naan tukulóor euh, maanaam séeréer jaamu tukulóor demeet pël fuuta baa ngay tooñante dañ gisee ne loola mënta daj ñu dugal ko ci ay kal siise siise yaag ñaseen ya njaayeen yaag njóobeen ya demeet ba kal ya jeex moo tax senegal kenn mënu koo taxal ci wàllu waasoo kenn mënu koo taxal ci wàllu raaso ku ko ca jéem a yëkkati yaa cay des waaye du tere nit ña bëggante soppante ca wàllu woowa kon ab jaaykat dafa war a tabe rafet jikko ci sa jëflante sa tabeeg sa jëflante googa moo lay may soo amee client mu leb la nga lebal ko te yàlla tax soo ko lebalee mu yéex a fay nga muñal ko soo jegee ne manta fay nga may ko ko mbaa nga sarax ko ko bañ koo toppante foo toll di ko woo téléphone foo toll di ko gàccaal ci biiri mbokkam wala nga koy gàccaal ci ay xaritam kooka baaxut moo tax yàlla ne wa in kaana du usratin fa nadiratun ila maysratin wa an tasaddaqu xayran lakum in kuntum taalamuuna suratu baqara aayaam ñaar fukk ak juróom-ñett lii la yàlla bëgg moo tax yonentu baa ngi wax ne am na benn góor benn jaam yowmal qiyaam dana jot yàlla xisaab ko pour régler ko bam ko xoolee amul dara lu baax julli wu baax amu ko xamul weeru kor bu baax amul yoonu màkk amul jàng alquran amul dara lu baax moom daal benn bu baax dong la dafa nekkoon ko xoomal waxoon doomam yi nekk ci bitig yi ak magasin yi ne leen képp ku leen leb nekk ku ñàkk lebal leen ko su mënta fay jéggal leen ko yàlla ne kii di jéggal ki ñàkk kii di jéggal ki mënut man yàlla maa gën a xëy ci jéggale waaye waaye jéggal naa la kon commerçant yi seen commerce gii seen caabi aljaana mi ngi ci seen loxo de su ngeen ko rafetalee ñu ñàkk ñi ngeen leen a dimbale léeg-léeg waa ngi ñëw sax eh, di sa client jamono neexatut nga may ko wala jamono neexatut nga sarax ko wala nga leem dara ne ko yóbbu ko ca kër ga leboon na la mëntu laa fayati léeg-léeg bu ñëwee ba traversé sa koñ bi dëpp léeg-léeg mu dem ba ne fii sens interdit la yow nga fexe dafa langoon nga lànkarti ko laajte numéro am ko ba ñëw ne ko ay sëñ bi yow jàppatuma ci dara jégal naa la lépp ak ah, jëlal li nga yóbbu kër ga su ko defee loolu lépp relation bu rafet la yàlla ne la yow yaay jé yaay jéem jéggale man nga jéem a topp ndor tey nga xam ne ma la dàq jéggale topp su ma la dara dugal aljaana yonentu ko wax mu ne fa lam yujad lahu min alxayri shay'un illa annahu kaana yuxaalitu naasa wa kaana muusiran fa kaana ya'muru xilmaanahu an yatajaawasu an almuusiri qaala laahu azza wa jalla nahnu axaqu bi dalika minhu tajaawasu anhu muslim ibnu Mas'ud moo génnee hadis bi imaamu muslim solo ko boo demee ci saywul muslim da nga ci fekk hadis bi kon waaye commerçant boo xam ne toppante ba mu sës rek moom daal. bor boo mënta encaissé mooy boo boo mënta jotati rek te léeg-léeg gaa yi sax dañ lay topp topp bam sës ñi topp topp mëntuñ caa jotati ñi far féetale ko yàlla bàyyi ba asaka ji jot rek ñi tiiree la ko ne ah waa jii kat na ma fanweeri junne ci asaka su ma si jotoon mën naa ko ko jox asaka kon naa ko génnee yooyu bokkut loo topp topp ba mu mënoo saa jot nga bëgg koo tiiree yàlla féetale ko yàlla foo ko teg daganut sariya nag nee na bu nit ki yore leen bor nga fay ko ko rek ba pare ne ko saa waay nag bul fàtte ne ameloon nga ma deux cent mille de mu yëkkati ko jox la ko muy asaka joo ko joxoon mu delluwaat dara nekkut ci waay su fekkee nga ko koo joxoon ngir bëgg koo jàppaat te dara taxutoon xel la ba lu dul naa ko jox asaka ji ba ba mu téye ko xam ne moo ko moom mu mën ma ko joxaat moo tax ma koy jox asaka bu taxutoon loolu du ma koo jox mu ko loola xaraam na soo ko defee sa asaka ji demut fenn ki ñàkk-ñàkk na amul lu mu fayee baal ko ko te yàlla tax yaa ngi fi tooñ yàlla ba bëccëg di dimbali ko wërsëgu yàlla gee carte nam gi sax dàq di ko tooñ te yàlla mbugalul la su ko defee boo lëggee yàlla mën laa jéggal say rëcc rëcc ku bëgg yàlla jéggal la dangay ngay jéggale ku bëgg yàlla topp la la yowmal qiyaam del toppanteek nit ñi dafay dafa may dafa dafa may jaay li mu jaay tey tey mu xam ne man la ko séq ak day jaay reewantu maa ko gën a reew dafay jaay xamadi maa ko gën a xamadi dafay jaay nangam ak nangam maa ko gën a def nangam ma ne mbubam réew ak mbubam jubadee xamadi am ci mbubam ismu faayil xëpp na waxuma la afaala tafdil nga taxawati naan lu muy jaay lépp tey ma jënd ko te la muy jaay dara baaxut ca lu kon yow tamit perte nga kon yàlla bëgg na commerçant boo xam ne dafa jàppandi boo ko lebalee mu lebal la soo mënta fay mu may la. commerçant boo xam ne du xuloo client am mokk du saagaxanteeg ñoom du ñàkkanteeg ñoom ba bés di ki tey mën naa taxaw di compter client am ñaar fukki xatam lu dul lu rafet rek dox ci seen kaw waaye léeg-léeg nga am boo xam ne ñu ma ko présenté nax nga ko wala triant nga ko wala yow tamit jëndkat bi léeg-léeg nga am maanaam euh, client boo xam ne ñu ma too waxat ne sama client la woon ndax seen jëflante ga rafetut yooyu yëpp dafa jar a daw juróom-benneel ba. commerçant bi dafa war a xam lu dagan ak lu xaraam maarifatul xalaal wal xaraam waaye di jaay rek yow mbiri lu xaraam ak lu dagan xamoo ca tus boo ko xamul foo jëm da ngaa war a fexe ba xam at tey lislaam yi ci jëflante yi jëflante bu ne nga xam la ca yàlla xatte bala ngaa dugg ca jëflante ga waaye di jëflante yow xamoo lu ca yàlla teg te doo dem laaji boroom xam-xam yi yow sa alal dong ngay seet kooka daganut war naa teet li yàlla tere mu jéem koo xam su ko defee li yàlla daganal mu jéem koo xam te jéem koo sóobu moo tax Omar ibnul Xataab moo méngoo woon marché madinatul munawwara dafa daan wax ne laa yabiix fi suuqinaa ilaa man qad tafaqaha fi diin suñ marché bi ku déggut fiq du fi jaay su fekkoon ne ku déggut fiq du jaay ci marché yi ña fay des du bëri de soo déggut fiq dugg ci njaay mi mën nga caa dugal lu ca bokkut mën nga caa génne lu ca bokk waaye suñ marché yi tamit bari nañu ca nekk ñoo xam ne ay fuqaaw lañ jàng nañ ba jeexal téere yi jamono dab leen amuñ fuñ jàngale wala njàngale mi koomatut ak la ca aju ñu hubbu seeni magasin masala moo leen laaj xam nañ ko moo tax ñu yàlla na toowaaree buñ xamee seen bopp ñañ gën a ragal mooy commerçant yi bari na ci commerçant boo xam ne waat naa ci yàlla nekk na am na ta am na amta makkun amta baxur fi jamiil funun su boobaa nag boo ko jàppee commerce ga rek mu daane la jàng na ba jeexal téere yi dem ubbi bitigam di jaay ku mel noona bu ko ragal yàlla ñu lugee rek la muy def lu lu rafet lay doon lu sell lay doon waaye nag bañ nekk ku jàng ba pare jàllal bi ku jeng kooku baaxul ndax jàng jeng ñoo bokkee xaraf te loolu dafa bëri juróom-ñaareel ba mooy al iktharu min zikrillah ab jaaykat dafa war a bëri lu muy tudd yàlla am nga occasion foofa mën nga di tudd yàlla jàng alquran day ñaan fekk bay client yee ñëwee bu ñëwee boo leen jaayaate rek delluwaat ci sa tudd yàlla ndax mbiram njaay daal dafa bëri ay soxla yu ci ne lay wat lu lay soxlawoo wali settantal wali maanaam ak sàggan ndax marché baag nañuy dajee yooyu yëpp boo ko toppee mu yàqal la waaye boo tuddee yàlla lu bëri rek yàlla dimbale la yàllaa ngay tàggane rijaalun laa tulihim tijaaratun wala bayun an zikrillah man de yàlla man yàlla bëgg naa commerçant yoo xam ne lu marché ba jax-jax duñ ko topp ba mu yàqal leen tudd yàlla duñ ko topp ba mu yàqal leen wa iqaami salaat taxawal julli wa itaayi sakaati yaxaafuuna yawman fi fihil quluubu wal absaar lii la yàlla bëgg yaa ngay jaay de waaye bu waxtu way jot rek nga ne ràpp sa kantin bi seet jàkk ja la gën a jege dem julli fa ñëw continuer at jaay yaa ngay jaay de waaye yaa jëloon engagement ci jël wiir doo ba waxtu wa jotee rek da nga téye sa kurusu wirdo bu jël waxtu wasifa wa jotee nga def ko waaye yow su fekkee diina ji ndes rek bala ngaa julli fekk na euh, waxtu wa paase na fu fu foo ko jekk ko rek nga koy manee bala ngaa wirdo fekk passé na waaye sa commerce bi jëralu la dagg wirdo jëralu la julli jëralu la tudd yàlla loola tamit du dara yaa ngi jëndee sa laaxira ci sa àdduna perte la kon yàlla dafa bëgg commerçant yoo xam ne seen commerce ba du leen yàqal tudd yàlla. du leen yàqal julli du leen yàqal joxe asaka du leen yàqal jàng alquran waaye tamit njaay ma euh, euh, loola tamit di tudd yàlla ga ak njaay ak ak ak ak ak julli ya ak joxe asaka ya ak jàng alquran ma du leen yàqal njaay ma ñu fexe ba boole ñaar yëpp kon bëri leen lu ngeen tudd yàlla yéen commerçant yi de leen jàng alquran téel sa kaamil bi ngay jàng di seetantal su client bi ñëwee nuyu nga fay ko xool fi nga toogoon boo waxee moom ba pare nga continuer xaat tegal sa kurus gi di wax laa ilaha illallah wala nga koy wax ci say baaraam del def istighfar del julli ci yonantu bi sa alayhi wa sallama am nga occasion bu bëree bëri loolu lépp dana la dimbale nga man koo taxawee tabaarakallaahu nam gën a sellee nam gën a rafetee kon nag juróom-ñaari jikko yi lañ bëgg ci commerçant bu ne mu jéem koo jikkowu ba ki njëkk mooy dëggu ñaareel ba mooy kóolute euh, ñetteel ba mooy daw lépp luy indi ak ngëñ wan ko gannaaw ab commerce du gëñ yoo ko defee tamit del saraxe ci li yàlla jox waaye na fonk joxe asaka na nga nekk ku tabe ku jàppandi ci jënd ku jàppandi ci njaay Euh, yàlla dafa bëgg commerçant boo xam ne buy jaay dafay jàppandi buy jënd tamit dafay jàppandi waaye dafa am commerçant yoo xam ne kenn mënuñoo jënd mënu jënd ci ñoom waxante yoo xam ne mën naa jël trente trente trente minutes am tamit client yoo xam ne kenn mënu leen a jaay ku leen bala nga bala ngaa am problème dajeeg ñoom fu ne la ñuy dal wàññil ma lii danañ fa nekk wax lu ëpp ñaar fukki minutes jël sa temps bi ku mel noonu yàlla bëggut ko yonent bi nee na rahimallahu rajulan sam'an idha baa wa idha ishtara wa idha iqtada yàlla bëgg na jaam bu jàppandi ci buy jaay nekk ku jàppandi buy jënd nekk ku jàppandi buy fayee ku bor nekk ku jàppandi buñ koy fay bor mu nekk ku jàppandi jàppandi daal lum dugg rafetal ko waaye gañ-gañal ak forseek xutur xutureek yooyu lum dugg ñaawal ko yëpp jar naa bàyyi xel Euh, bu baax a baax a baax a baax kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax yow jaaykat bi na nga nekk ku jàppandi na nga fexe ba xam lu dagan ak lu araam na fexe ba bëri looy tudd yàlla yii mooy juróom-ñaari jikko yi nga xam ne commerçant bu nekk bëgg nañ mu fexe ba jikkoo ko yéen commerçant yi may déglu nag euh, comme dee xamagut xamuñ kañ la yi ngi ci am ba xas téye ko téyel mu dëgër foofu la. yi ngi ci ñàkk waaye xam na yoo ci xam demal nga wuti ko su yàlla dogalee xamoo ca benn fexeel nga dem wuti ko ndax yi ku leen ñàkk te dangay commerce yaa nge xaru yaa nge xaru yaa ngi ci musiba mu rëy rëy waaye boo leen xamee ba pare di leen pratiquer nag su boobaa nag yow yaa ngi yore sa caabi joo xam ne ëllëg mën nga ci hubbi sa aljana waaye bi ci tegu tamit yéen commerçant yi dee leen daw lépp luy indi ak riba. riba baaxut te mooy dolli da nga dégg yaaram yi di wax ne ndax bu ñu waxee ar riba fi luxati rek mooy as ziyaadatu wal intifaa yuqaalu rabal maalu ay zaada wa yuqaalu raba fulaanun ala rabiyati ay maanaam ala wartafaa ilayha ci lañ jëlee rubbootu ji firi tund moo tax alquran wa min ayatihi anaka taral arda xaashiatan fa ida ansalna alayha ma ihtasat wa rabat kon ci la baat boobu jógee ko mooy lépp lu dooleeku rek wala mu funki wala mu préparé wu ngir sax gàncax yàlla nga koy waxaat ci yeneen aaya wala takunu kallati naqadat ghaslaha min baadi quwatin ankaasan tattaxisuuna aymanakum daqalan baynakum an takuna ummatun hiya arba min ummatin kon arba ja mooy afaala tafdil ja kon jaay baat bi foofu la bàyyeekoo ci luxa waaye nag riba ci fuqaaw mooy dolli ca sumaal ba ngir yéexe diir ba waa ji yoreel na la fanweeri junne ngeen jëm weer wu dee la cinq la war a fay la cinq jot na manta fay nga ne ko dolliwaat ci vingt cinq mille muy muy deux cent mille wala muy cent soixante quinze mille su ko defee ñu jëm beneen weer wu deewaat wala ñu jëmaat beneen la quinze kooka da dolli kooka dafa xaraam dolli bor ba dolli diir ba wala sax aw ziyaadatu jinsin ala jinsihi fil bay'i li ajalin aw aw li xayri ajalin wenn xeet woo xam ne ñoo bokk xeet wu nangu wut xëppalaate dugub ak dugub ceeb ak ceeb mboq ak mboq nga jël yow jox ma ñaari saakooy mboq pour ma jox la benn saako mboq wala saako genn wàll léegi léegi walla ñu dem feeg weer wu dee laa koy jox yooyu yëpp dafa xaraam ndax lépp lu bokk xeet xëppalante ci xaraam na wala sax lu bokkul xeet aw ziyaadati jinsin ala xayri jinsihi fil bay'i lil ajal buñ bokkul xeet dagan na xëppalante waaye daganut yéexe dagan na ma jox la ñaari saakoy gerte nga jox ma benn saako ceeb wala nga jox ma benn saako mboq ma jox la ñaari saakooy gerte wala ñaari saakooy bene waaye nag léegi léegi lay doon buñ ko naree dem ëllëg rek wala ca ci rek xaraam na moo tax nga gis nga ca àll ba léegi léegi saree tëb jën ba ñëw ne ah, ah benn kilo dugub ñaari kiloy jën. dagan na waaye nag boo ne ko jox ma jën yi ma dem jëri dugub ji rek xaraam na dugub jaa ngi nii jën yaa ngi nii teg teg gi rek bu ca loolu amul rek amul yeddan bi yeddin kon buñ bokkatul xeer rek xëppalante ga dagan na waaye yéexe ga daganut su fekkee nag bokkuñu xeet xëppalante ga ak yéexe ga yëpp xaraam na yeddan bi yeddin mislan bi mislin su xeet ya xuutee nag dagan na xëppalante waaye daganut yéexe kon loolu ci lay ñëw wecc xaalis euro ba dugg yaa ñëw bëgg a dem siin yore seefaat 40 million bëgg ko ko defal euro taux ba cay tegu daga na ca kay wecci waaye nag yadan bi yedin jox ma léegi ma jox la léegi waaye naa la jox jox ma xaalis bi ma dem jox ma CFA bi ma dem wuti euro xaraam na déedéet xaraam na lool. moo tax yàlla lu mu xaraamal boo ko defee am ci problème ñaata ci ay commerçant Sandaga wala fudul Sandaga ñoo may déglu wala déglu wuñ ma ñaataa ki joxe seen CFA ñu war leen a utal euro daw moom mbaa ñu war leen a utal dollar daw moom nga doxee ci ba bis ni ki tey jotuñ ci seen xaalis ba ñaata lañ kenn xamul nuñ toll dañoo def li leen yàlla tere la leen yàlla digaloon bi ñu ko defoon du ñu am problème mooy CFA laa bëgg CFA laa am bëgg ku ma ko defal euro wala dollar demal wuti foo mën a xamee fekk ma sama place nekk noonu noona ci seen ban bi ngeen toog ma ñëw nga jox ma ma jox la nga dem ma dem waaye nag am utali ma defal ma nangam waaye nga daw sa xaalis bi nga perte ba ma qiyaam ngeen di dajeeti waaye fi dootoo fi jàppeeti kon nañuy bàyyi li ñu yàllay tere yooyu yëpp nañ ko daw kon loolu ma wax la mooy ribal fadli nañ koy riba goo xam ne li ko tax mooy xëppalante wax naa la ci tamit riba a mooy riba goo xam ne li ko tax a mooy yéexe ga xëppalante ga dagan na waaye yéexe gi tabaarakallaahu moo xaraam yooyu yëpp nañ koy daw ci xeeti riba lii mooy xeeti riba benn rek muy ribal la wala muy riba nasi'a mënu ko génn yëpp boo ci dàq ci xeeti riba yi rek lii lay doon riba goo xam ne xëppalante tax daganut saakoob dugub saakoob dugub rek saakoob gerte saakoob gerte ñaar téeméeri CFA ñaar téeméeri CFA mu jeex waaye bu ca ëppalante xamee ci jëflante gi xaraam na moo xam ci bor la ak ya ca yëpp xaraam na buñ bokkul xeet nag dagan nañ ëppalante waaye nag yéexe ga daganut jox ma ma jox la léegi amul ma dem wuti bu dee weer xaraam na nañ mooy tandi ko riba moom nag lekk ko ak jëflante ko dafa bokk ci bàkkaar yi gën a mag bokku ci bàkkaar yoo xam ne dafay gotti képp koo xam ne nii yaa ngi koy jëflante ndax riba rek la yàlla rëbbu ki koy lekk ki ko koy lekkale ki koy bind tabaarakallaahu rëbbaale seede yaag rëbbaale euh, lépp lu ci xaju loolu lépp dafa jar a daw euh, malaaka yi boole ko di la rëbb mboolem nit ñu baax ñi di la rëbb yooyu yëpp jar naa daw kon nag liy tegtale xaraam ak riba ci alquran ayaat yu bari la li koy tegtale ci hadis yi hadis yu bëri la bokk na ca aaya yàlla wax ne yamxaqullahu riba wa yurbi sadaqa waxaat wallahu laa yuhibbu kulla kafaarin athim yàlla tamit ne wa ahlallahu albay'a wa harama riba yàlla ne yaa ayyuhan taqullaha wa dharu ma baqiya min arriba in kuntum muminin fa in lam tafaalu fa'dhanu bi harbin min allahi wa rasulihi suratu baqara aaya ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett di ma la njëkk a wax tamit yam xaqulaahu riba suratu baqara aayaam ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn kon gis nga yàlla waxam bari na waaye takk xareem bëriwut waaye ñii lekk riba ne duñ ko bàyyi yàlla nee na bu ëllëgee danaa geer ak ñoom te maag sama yonantu bi ñooy far yàlla ak yonantu bi ku ñu far di geer ak yow waaye waaye yow ku la xam sax du mucc kon nag képp kuy lekk riba bu ëllëgee da nga xeex ak yàlla. ñaari yoon rek la yàlla takk la takk gar geer alquran jeex benn yoon la ci yàlla takk geer mooy ñiy lekk riba. moo tax lekk katab riba balaa dee nga yërëm ko dana dana torox la ma xamoon lépp dana ko ñàkk lam dagale woon lépp dana dana dana yàqu mu dee bàyyi fi ay doomam nga yërëm leen démb bu dee dañ ko dañ koo ñeewoon ci commencement ba waaye ba ngeen dem ak ci ba ngeen arrivé rek fekk na ñoom ñëpp torox nañ doom yëpp nga yërëm leen loolu lépp baaxul ndax euh, lekk googa lekk riba googa muy xalal ju xaraam ja ci la doon alimenté wu di ci alimenté doomam te loolu yonentu nee na bépp xaraam xalal ju xaraam ku cay lekk fa naaru awla bii loolu moo mu gotti ko ga mooy dal seen kaw da kon baaxut riba nañ ko daw lu bon la yàlla ne koy def naa ger ak yow alquran ba alquran jeex fii rek la yàlla takkee xare mooy ñiy lekk riba hadisul qudsi yi benn yoon la ci yàlla takk xare mooy waliyu yàlla yi ku ko ci bañal benn safara nga jëm moo tax mu ne man aada lii waliyan faqad aazantuhu bil harb bul jàpp ci benn sëriñ ngay mooy sama sëriñ tax ngay contre beneen sëriñ ab jàmbur di ko wax wax ju bon boo guddee fan àdduna yar la boo gàttee fan bàmmeel yar la kenn mënu ci dara ndax benn waliyu bu la yëpp bañ la ñoom ñëpp ñoo bokk réseau moo tax Seexu Tijaan li maqaamaam bay rëy rëy mu ne nga jàpp sama tariqa bi tax ngay bañ beneen waliyu mën a lu ma la dara kenn mënu loolu dara tamit yowmal qiyaam safara nga jëm kon nitu yàlla kenn du ko bañ bi ca tegu Buxaari yooyu wax ak muslim mu bokk ci hadisi abi hurayra ya yonentu bi ne ijtanibu sab'al mubiqaat qaalu ya rasulallah wa ma hunna qaala ashirka billah wa sihra wa qatl nafsi lati harama la ilaha bil haqq wa akla riba wa akla maal al yatim wa tawalla yawma sahfi wa qadfa al muhsanaati al mu'minaati al ghafilaat yonent bi ne moytandiku leen juróom-ñaari bàkkaar yi xalak seeni borom bi ci njëkk mu ne bokkaale yàlla njabar rey bakkan bu yàlla xaraamal ñi rey ko lekk riba lekk lu jirim daw bi sab xare xas nit ñu baax ñi jigéen gu sangeewu saggan lool ci bàkkaar gëm yàlla nga sàkk ko mënoo koo jot rek nga taxaw di ko tuumaal kàddu yu bon léegi nit ñaa ngay tuumaalante ci Facebook yi internet yi WhatsApp yi wax ju bon ju nekk nit di koy wax sa morom te xamoo ca moom dara bon rek a tax wala la nga nekk la nekkul rek nga koy bañal Maam Alaaji Maalik wax na koo ca téere bu ñuy tuddee kifaayatu na mu ne jamono lañ joo xam ne daal nit ñi dañuy lépp loo ne. yaa ngi koy jubal ne mooy li baax keneen lam ne nga ne dara nekkul ci lu bon la moo tax mu ne jikko ya yahood ya jikko woon ci jamono ji mooy jikko jullit ñu bëri wa qaalatil yahuudu laysati nasaara ala say wa qaalatil nasaara laysatil yahuudu ala shay loolu lépp nag euh, bon rek a tax moo tax ñu jàpp tariqa tuddee seen bopp salafi ña ngay contre borom tariqa ya borom tariqa ya ña ngay contre ñale borom tarixa ci seen biir ña ngay contrante ña ca bokk tarixa ña ca bokk benn tarixa sax ña ngay contrante yooyu yëpp kon bakkan rek moo ko waral waaye yooyu yëpp dara baaxut ci nañ ko daw nañ ko moytu kon eh, riba koy jëfandikoo yaa ngi jëfandikoo bàkkaar bu mag yaa ngi jëfandikoo bàkkaar buy gotti borom yaa ngi jëfandikoo bàkkaar boo xam ne dana la toroxal ci àdduna ba ñëpp yërëm la mu door laa toroxal ëllëg ci àllaaxira yóbbu la safara bu la yàlla jégalut moo tax kon jar naa daw nañ koy bàyyi xel yii yëpp commerçant bi na koy daw ci jëflanteem ci wàllu ribaa ak nay daw taxañu ci lépp lu xaraam nga nekk ca li yàlla tere nga nekk ca taxañu ca rek mel ni kañ guddi ba ñoo dara te gis nga riba ak lépp luy lu xaraam xeet yëpp la ko yàlla xaraamal ni ko xaraamalee ci xeetu yoon dina ko xaraamee ci nit musaaña ibrahima ya isa ya moo tax mu ne fa bi zulmim lazina haadu xaram naa alayhim tayibatin uxillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kasira wa axdihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwal naas bi baatili wa atadna lil kaafiriina minhu azaban alima kooku ma nga ca suratu nisaa yi ayaab tabaarakallaahu téeméer ak maanaam juróom benn fukk ak benn kon nañ ko daw yëpp jar naa daw su ko defee kon nag li tax yàlla xaraamal riba dara waralu ko ba xaraamal ki koy lekk ki ko koy lekkale ak lépp lu ca askaniko ndax riba dafay dafa mën a jëmbët ak nooneel ci nit ñi ndax nit ki su fekkee dafa laa jekkoon ba tax mu jekkali la ci saalal jii yow tamit su boo demee ba génn ci loolu rek dafay mujj nga soppeeku sab noon boo xam ne dootoo ko bëggati mukk te riba euh, ku koy jëflante xalal ji dafa mel ni galaas rek mën naa formé wu ba nga ne galaas gaa ngi nii mu xëy lépp seey yàqu kenn mënu ci dara kon nañu daw ribal fadli riba boo xam ne dolla la tax mu xaraam nañu daw ribaawu nasi'a yonent bi waxoon na ko ne jaayee leen wurus ci wurus laa ta maanaam laa tabiu zahaba bi zahabi illa mislan bi mislin comme wurus ak daal yadan bi yadin mislan bi mislin wala tusifu baadaha ala baadin wala tabiu lwaraqa bilwaraqi ila mislan bi mislin wala tasufu baadaha ala baadin wala tabiu minha gaa'iban bi naajisin bu leen jaayee lu fàddu ci lu teew illa yadan bi yadin am na ci riwaaya bu ne ilaa wasnan bi wasnin mislan bi mislin loolu buxaari yu ak muslim yëpp andi nañ hadis bi kon lii lépp dafay xaraamal ribal fadli lépp loo xam ne moo bokk xeet bu ca kenn xëppalante ci dara riba nasi'a tamit hadis yi ñëw di ko tere bari na ridaa boo xam ne yéex a rek moo ko tax a dafa daan am ki jamonoy jaahiliya yi ñu ko daan jëflante yooyo yëpp dañ ko war a daw. Euh, su ko defee kon yonantu bi sallallahu alayhi wa maa ngi koy wax dafa fekkoon gaa yi di leb ci madinatul munawara mu ne nag kuy leb na leb luñ xam buy fay mu fay kem lam leboon ca nañ ko ko nattalee woon wala nañ ko ko peesalee woon moo tax yonantu bi leboon na ci genn góor euh, tabaarakallaahu benn gëléem mu dikkal ko gëléemu sarax ya ñëw mu digal ma man mii mooy ki solo hadis bi di abu rafi ne naa dem ma fayal ko borob gëléemam booba mu mu leboon ba ma demee fekkuma ca gëléem ya lu dul gëléem yoo xam ne dafa rafet nekk tànneef lool yonentu bi ne ma jox ko ko rek gëléem la ma leboon gëléem laa koy fay rek su ma ko fayee nag gu gën a suur ak gu gën a rafet xalaa kulli xaal fayin wu rafet rek la moo tax mu ne ko i'tihi fa inna xiyaarukum axsanukum qadaan ki gën ci yéen mooy ki gën a rafet mu muy fayee kon ñi fayoon ñi lebaloon la dugub ju ñaaw ci fukki bërigo nga fay fukki barigo yu rafet fekk waaja sartaawu leen ko dugub faada dara nekku ci fayin wu rafet rekk la waa ji lebaloon la aw fas mën naa wu làppoon la nga soxla ko ci nawet bi dem ba ngooñ am nga am fas bu baax yafal ko jox ko dugub ñëw fayee ko ko ko fayin wu rafet rek la donte wii moo gën a suur moo gën a nekk ndaw lépp comme fas la fas la rek jeex na loolu lépp ci mbaax la ko ko def tamit yàlla dana la fay xam naa boo ma toppee suba ci waxtu wii wax naa ak yow njaay ak li ci xaju wax naa yow ak riba niñ ko waree teet danaa wax ak yow lu ñu tuddee mudaaraba ba nag bëri na ci commerce yi mooy lu ñuy tuddee xiraat mooy yow mi may déglu yaa am say surga ci dëkk bi bëgg leen a ubbil magasin wala nga ubbil leen bitik bu ko defee buñ demee ba juróom benn weer wala fukki fukki weer ak ñaar ngeen réglé def inventaire ngeen génnee yaxu xaalis ba teg ko fale da ko defee bénéfice ba nag bu leen neexee def ko ñetti xaaj yéen lu ngeen juboo rek fekkee da ngeen a juboo ci ñetti xaaj magasin bi xaaju boppam yow mi moom alal ci sa xaajo bopp ah su ko defee tamit moom ma ca doon liggéey xaajab boppam ah, danaa la ko wax suba li ci lislaam nangu lu ci bëri ni ñu koy defee daganut ubbil nit ki cantine def ko yére ba pare jox ko ko ngeen ngeen def xiraat ngeen rek la déedéet xiraat ni muy mën a amee danga koy jox xaalis bi ba pare mu téye su fekkee dafa ne nangam laa bëgg jënd nag mën nga koo orienté ci jàppale ko mu jënd loola buy sarse nag fekk yow wutal booy wut magasin fekk wut nga ko ngeen ngeen door jël bagage def ca waaye jox ko moom ci boppam nga jënd bagage ba pare door koo jox mu nekk fa di jaay ajiir la war a doon ajiir mooy baajoo weer wu dee rek nga fay ko mu dem nga dem lii la lislaam bëgg bu weer dee deexee te ca jaayut benn morso da koo war a fay bu weer dee deexoon mu jaay cantine ba yëpp wala mu jaay fukki fanak juróom ca la nga ko sarteloon lépp fukki fanak juróom dong nga koy fay lii kon fokk ñu xàmmee mudaarabatu fokk ñu xàmmee ijaaratu boo ma toppee suba danaa jëw ak yow ci lu dinaa fokk ñu xàmmee sharikatu mooy bokk def associé di liggéey nga yëkkati téeméer ju ne ma yëkkati téeméer ju ne ñi ñi ñi boole su ñaari xaalis ya di dem siin wala ñu dem defi nangam di liggéey moo xam walla ñu boole suñ jëmm yi amuñ xaalis maa maag yow ñoo bokk nekk maçon foo xëy ma xëy fa lu ñu fayeeku ñu bokk fayeeku ko euh, loolu lépp naa la ci wax suba insha allahu ci diggante mudaarabatu danaa ijaaratu naa la wax sharikatu muy bokk associé di liggéey boole xalal naa la wax tayle li ñu tuddee rëhnu yooyu yëpp boo ma toppee suba ci waxtu yi bu ci xaj rek ñu dugal ko ci wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu